ngi noonu mbokk yi Cheikh Super Diamono ngi noonu ak capitaine Dina Cheikh am na lu muy diw ci pooj bi <laughs> capitaine Dina ngi noonu capitaine dinaa moo ngi wër samp ay sondal waaye Cheikh a ngi noonu jël béjjén bi di ko bomb ci tànk yi gis ngeen lamba ngi nii waaye Cheikh Super Diamono mbokk yi cosaan la andi tey boo ma xoolee ngembam lii. am na cosaan la andi mbokk yi capitaine dina sonne li muy teg boo yaa ngi koy dindi di sànni Cheikh Super Diamono am na lu muy jël di ci yaram bi bee jël la mbokk yi tey làmb lépp aar lépp lépp lépp aar la tase bi Cheikh Super Diamono capitaine dina capitaine dina wa ngi noonu Cheikh Super Diamono ngi noonu capitaine dina Cheikh Super Diamono dafa mel ni dafa niin ñoo ngi koy fomp Cheikh Super Diamono capitaine dina capitaine dina ngi noonu daa mel ni dafa xaw a niin Cheikh Super Diamono pare na capitaine Dynamo ngi noonu di dem ci diggi géew bi làmb ji gëm naa du yàgg buñ ko defee ni ko xale yi defee léegi ñu jóge fi dem ñibbi Cheikh Super Diamono capitaine Dynamo première journée sëñ Modou Niang abit baa ngi wax ak ñoom li làmb nangu ak li làmb bañ làmb ngi nii Cheikh Super Diamono capitaine dina abit baa ngi laaj ay jugeem laaj na capitaine dina laaj na Cheikh Cheikh Super Diamono abit ba sifflé na Cheikh Super Diamono capitaine dina Cheikh Super Diamono à gauche capitaine dina à droite Cheikh Super Diamono ñaan na ci kanam gi ne gaay jóg leen reculé waat na moom Cheikh Super Diamono capitaine dinaa na ngi ne tekk di ko déglu cey làmb làmb a ngi noonu Cheikh Super Diamono capitaine dinaa capitaine dinaa na ngi ne tekk moo ngem moo lu ñuul li moom capitaine dinaa ànd ak waa yoof gépp waa yoof gépp ngi noonu day leetoo ba mu neex mu dagg leetoo bi dellu ginnaaw taxaw dellu si waat Cheikh Super Diamono teg pied gauche capitaine Dina teg pied gauche waaw xeex bi day xaw a compliqué tuuti ndax fausse garde la Cheikh Super Diamono day leetoo ba mu neex ko mu dagg leetoo waaye capitaine Dina accéléré na ko capitaine Dina dogoon na gauche léegi waaye dalul capitaine Dina Cheikh Super Diamono. cey làmb làmb ngi noonu Xadim Anta maa ngi bëggee téléspectateur Wassare yëpp Cheikh Super Diamono ngi dóor capitaine dinaa jël na tànk ba Cheikh eh Cheikh dugg na léegi eh signalé na moom Cheikh Super Diamono ndànk capitaine dinaa ndànk daan na ko capitaine dinaa capitaine dinaa daan na Cheikh Super Diamono daan na ko waaw waaw capitaine dinaa daan na Cheikh dafa signalé mu accéléré daal ci kawam combat ba daanu nga Cheikh Super Diamono daanu nga Cheikh Super Diamono daanu nga Cheikh daanu nga moom Cheikh comprendreul ba léegi dafa signalé te arbitre bi siflewul capitaine dinaa ngi noonu bu leen ñu yàqal suñu tey daa ni lii moo fi xew kuñ fi ngeen damal ñu suñuy seize ñun lii lañu am bu leen ñu ko yàqal lii lañu am bu leen ñu ko yàqal yéen bàyyi leen seize yi ngeen yàq gars yi dégg nga gars yi dégg nga. Assane Diagne lay gën a rafetlu ay séen. képp ku ci bàyyi séen. waaw dama la séen ay séen dina dëgg.